Baye Assane Mesre ñu dooree ko ak président Macky Sall am na ko ma gis ci commentaire yi mu naan euh, Assane ay Macky Macky Assane xam naa daa gisoon démb nga di ko woo président Macky Sall tey jii war naa wax. Euh, incha allahu rabbi ci 19h bu fekkee ni puusaatuñ heure bi ala kulli xaal nag mën ngaa xëy ñu la puus nañ ko ndax yi fi am mais daal 19h war naa wax ak sénégalais yi. waa ñu ngi koy xaar mu wax su waxee ba pare si kàrtu suñu borom ñu ñëw si jàngat ay waxam. ndax fi mu toll nii moom réew mi fi mu toll nii réew mi dañuy war di wax. Mm. li leeral tolluwaay bi. mais li ma wër te wóor moom bu dee wax it digganteem ak opposition bi wala digganteem ak Sénégal yi wala digganteem ak euh, ñi nga xam ne ñoom lañ bàyyi wala digganteem ak yeneen ak yeneen xaj na bu duntu doon 60 40 dina doon cinquante cinquante kooku moom xam naa ko moom. Mm. waaw bénéfice bu ci amit 50 50 rek lay doon. bénéfice mooy lan. ma ne 50 50. bénéfice. Hmm? comme ça moom bu waxee. Hmm. dana am loo xam ne dana ko si arrangé si wax ji am loo xam ne dina arrangé opposition bi wala Sénégal yi dana ko def cinquante cinquante. waaw ah, mais xam nga Assane li ngay wax léegi dana wax cinquante cinquante mooy lan. cinquante cinquante xamoo. waaw ah, non man xam naa cinquante cinquante. Ah, mais li nga li maanaam li nga bëgg a dugal sama bopp bi laa comprendre ni nga bëgg a dugalee cinquante cinquante. ci ay waxam yooyu. waaw boo joxee hélas waxee da nga comprendre. déedéet non non non non. munoo fi say waxi bopp nga doon ko sëñ. yow xamoo cinquante cinquante yi. waaw xam naa ko xam naa cinquante cinquante mais ni nga ko bëgg a kiyee nii bàyyi li Macky Sall yi ngay def. wala boog bu baax boo junjee naan la ko alaaji say biir naan naan. waaye it bu naan ma xamoo cinquante cinquante. <laughs> cinquante cinquante xamoo cinquante cinquante waaw. <laughs> sama yoon cinquante cinquante yow yaa ngi koy wax cinquante cinquante daan bëgg a xamoo cinquante cinquante yi leeralal li nga wax booy wax waxal say cinquante cinquante leeralal ko sa bopp man aw ma dara lu ma ci leeral xaw ma ci dara vraiment dara laa ci xamul waa ji bëgg a dugal waaw naan xamoo cinquante cinquante waaw moom dem jëli ay mbiram waaw daan ne cinquante cinquante bu alaa jëlee dina ko leeral waaw ba noppi daan bu alaa jëlee dina ko yow xamoo cinquante xaw ma ko de. ñëwal xaw ma ci dara laa ci xamut. non alaaji yow Assane yow daal. <laughs> demal ak say say cinquante cinquante kay man. yow yaa yaa yow yaa wax bu dugg ci ay diggante cinquante cinquante dugg ci ay calcul kañ <laughs> sa yow yaa dem bay mathématique. waaw <laughs> léegi daal sa mathématique boobu na leer sooy bu da laa laaj nuy cinquante cinquante. waaw léegi nag ñëwal. ñëwal yi déglu de. meilleur chroniqueur. wax dëgg yàlla dañ ko déglu. kii dañuy font de. joxe hélas. ah jox la sax leeral la ko 50 50 doo ko leeral. non non non après su lundi. lundi ah, non non non non non. ah jëm. ah non non non affaire nag. d'accord wóor na yàlla. yàlla du daal de parce que xam nga bu leen di bu ñëwee. waaw naan voilà lii laa doon wax cinquante. waaw. muy daanoo. demal. non non léegi man lii leer na sama bopp demal. <laughs> waaw après léegi internet yéen cinquante cinquante gi Assane di wax leer na ci yéen wala leerul ci yéen. waaw defal na laaj leen waaw. Hmm? joxe hélas ndax laaj leen ba def. leer na ñoom ñu ngi koy bind sax cinquante cinquante joxe hélas. ñoom lañ bind kenn bindu sa sa dañu ay reetaan dong lañu def ak cinquante cinquante ñoom comprendre nañ ko. Hmm? comprendre nañ ko hélas bi moom gën a comprendre man. Hmm. Hmm. am na ku ñuy wooyee Falil Falibra Fall nee na Assane dama laa bëgg a invité Maroc. Hmm? Maroc pourtant démb léegi mi ngi koy bind dama ko fàtte woon. Ah, wax na dëgg de ajo. ah ma sa ngoon. kon boobu Falibra Fall yaa ci des. su ma su ma joxee numéro bi nga bëgg nga jaar ci pour am numéro Assane dinaa ko joxe. boo ci jaaree di nga amaal numéro Assane bu ko defee ngir yeggali loolu. ma jël conseil rek. alaaji euh, kilifa gi de dafay wax ngoon incha allah bu dee defuñu nam ñu defoon daal 19h jàpp nañu dina wax man ba keroog ma koy gis ci télé bi. waaw wolof da da day yóbbante kuy fóot saabu jala waaw comme ko ku war a wax moom doo anticiper. mais mën nga ko lii la war a wax. waaye mën nees na yóbbante peut-être mën nañoo dégg euh, te bu ñu déggee it euh, peut-être mën na jouer ci kii parce que xam nga pareen saay li gën ci moom. maanaam boo waxee ne damaa war a wax mhm. mama bis boobu balaa ngay wax dangaa war di déglu maanaam ñiy wax ah. fiñ lay xaar est que discours bi duñu ko boo leen dégloo loolu moo war a orienté hmm. li nga war a wax hmm. waaw parce que bu boobaa amatul filtre entre yow parce que conseil yi hmm. dañuy filtrer li nga xam ne moom lañ lay wax maanaam daf ci am ñoo xam ni dañuy xam personnage bi ñuy waxal xam li mu bëgg a dégg ñu di ko ko wax. ok looloo tax conseil da ngay jël conseil ba ci yàgg dootul amati njariñ. Mhm. parce que li tax dootul amati njariñ maanaam après léegi dootul xoolati yow bi nga koy jël da ko jëloon pour mu lay wax li xew. Mhm. mais finalement day xool yow ni ngay doxalee muy seet li mu bëgg di la ko wax. léegi nag bu fekkente ni bi tey dañ ne président dafa war a wax. Hmm. dafa war a wax rek la ñu war a yem mais daanaka dafa mel ni dañ tegal li mu war a wax dañu ci la war a wax. Ah, am na journal yu commencé wax waaw ah, dafa naa am na yoo xamante ni wax nañ ko ci looyu mu war a wax nag dafa war a wax ne ne président de ñëw wax ci tolluwaayu réew mi. dañuy jàpp ne moom ci élection yi rek lay wax. waaw nit ñi ñëw nag jox def ko ci ay situation quoi wax expliquer ko xam nga jamono juñ toll nii boo seetee euh, dafa am yu bari yoo xam ne bi son yi bu alaaji dafa kuma dafa dafa am ci jamono ji sama Sénégal jamono juñ toll nii jamono la joo xam ne jamono ju naqaree waxee la. Mhm. parce que dafa am yoo xamante ne bi yaa ngi koy gis mu am ay manœuvre yoo xamante ne bi leer na ne yaa ngi kiy teg say bët yaa ngi koy gis loolu nga xam ne yaa ngi koy gis nag ñu bari pour kenn ne ci dut baaraam yombut. Mhm. wax li nga xamante ne bi mooy mbir mi. ñoom ñi ngi xaar chronique moom laa la expliqué dem ne la ñi ngi xaar chroniqueur yi waxal leen ko. chroniqueurs yi ñu ngi commencé di cof tuuti ci li nga xam ne mooy bëgg-bëgg naan nag bëgg-bëggi hmm. euh, kii lii la jublu ci lii la jublu ci lii la jublu ñu naan tas lii li mu jublu naan tasaat lii xam nga nit ki war sa dem ak ay bëgg-bëggam jamono juñ toll ni dañu war a wax li nga xam ni mooy li ñu bokk muy loi li nga xamante ni bi moom la wax hmm. yoon lim ñu wax mais boo seetee ñun dañu mel ni dañu jël yoon tegee ko ndële léegi déglootuñu sax yoon te et ñi ngi ñuy orienté ci ñu bañatee sax bàyyi xel yoon maanaam léegi conseil constitutionnel day wax sax mais wax ji day mel ni wax ji dafa woyof quoi maanaam dégluwuñ ko quoi mais lan la président war a wax te président dafa war a tënku ci li conseil bi di wax. Hmm. parce que conseil bi moo ñuy wax li nga xam ni moom moom la ñu bokk muy yoon. Hmm. mais boo seetee ñun ñëpp tey déglootuñu yoon. waaw ñu ngi naan lu président di wax. mais léegi président la ñuy déglu moom lan la ñuy wax. et pourtant yoon mooy li ki nga xam ni moom la ñu war a déglu. mais xoolal jamono juñ tool nii ndax ñi ngi bàyyi xel yoon lu conseil constitutionnel wax bu waxee ñun ñëpp foofu la ñu waroon a focus ne lii la conseil wax mais ñëpp ñi ngi ci dialogue bi président di woote. Mhm. te conseil bi wax na ay waxam mais boo seetee dafa mel ni léegi yoon moom néewal nañ ko doole néewal doole goo xamante ni gii. Mhm. doo comprendre sax parce que li ñuy gën a jiital à l'avance mooy rek. président te président nag moom wax dëgg fa yàlla bu wàccee yoon. waratuñ koo dëgg waaw yoon lañu war a. Ah dafa wàcc yoon instant bi. li mu war a wax daal. lu ma ko doon yóbbante daal man. pour bëgg mu xam moom. li ma ko yóbbante daal mooy. Hmm. li muy wax. na fexe ba bu mu woroog li conseil bi wax parce que loolu mooy dooleel yoon te yoon mooy li ñu bokk. mais bu waxee lu woroog. li conseil bi wax mi ngi même bu fekkee ne mi ngi jéem defe ne mi ngi regle problème mi ngi yàq parce que fi muy taxaw pour régler problème dafa nërmeel yoon ba noppi ne mi ngi régler mbir ngir teg ko ci yoon. ci yoon ah, maanaam da ngay nërmeel kon li nga xamante ne bii ci nga taxaw moom loolu mooy li ñu bokkoon muy yoon nga bëgg koo nërmeel ba noppi nag naan la ngay teg dana tegu ci yoon pour man la ngay teg du tegu ci yoon parce que tegoo ko ci yoon bi nga ko xamante ne bii yaa ngi koy teg. ok ñëpp nag nee nañ waaw bu ñu waxtaanee ba juboo ba déggoo ñan ñooy déggoo politiciens yi rek ñooy waxtaan juboo déggoo politiciens yi rek moomuñu réew réew mi ñan ngay xalaat. no li ñuy wax dañ naan bon nañu waxtaan woo ñii woo ñii woo ñii woo ñii. société civile bi tam. mais ñooñu ñuy woo. est-ce que am nañ màqaama tey pour représenter peuple bi ci jëmmi boppam xam nga dafa am mbir fu muy toll dañuy wax ne nañ delloo lépp peuple bi. moom mooy référendum yi ngay dégg. Mhm. comprendre nga. ñu ne nañ jël yëf yi jox ko ñi nga xamante ne bi ñooy peuple peuple bi ci boppam moom moo war a décider. Mhm. yaa ngi dégg. peuple bi ci boppam dañu demoon voté ji référendum am loo xam ni peuple bi dañ cee àndoon ne yëf yi nii la war a tëddee te président Macky Sall mi moo ñu ko voté loo woon ñu voté référendum sart yi ñun tëggee ko ni nga xam ne noonu lañ ko tëggee du dëkk léegi nag ñu toll foo xamante ni fii tey sartam yooyu nga xam ne moom moo waxoon ne def na ko ba verrouillé ko sart yooyu wëlbatiku dal ci kawam nanguwu ko mu bëgg woote beneen waxtaan ngir defaraat yeneeni mbir yeneen mbir yooyu muy defaraat it pour man du dëgër parce que dafa màbb la ñu bokkoon askan wi waxoon ne lii la hmm. ba noppi pour taxawal loolu maanaam boo bëggee defar aw yoon da ngay fexe ba tegu ci yoon mais tey jii sooy bu su ma ñëwoon ne maa ngi rëddu yoon bàyyi ci suuf fii yoon bi jaar ne maa ngi defar bëgg a def yoon fii ci kaw kii bii dinaa am ay jafe-jafe te loolu nag mooy li nga xam ne mooy kii maanaam jamono juñ toll nii moom wax dëgg fa yàlla conseil constitutionnel waxam dafa mel ni sax soreewut ak suñuy wax hmm. ah waaw conseil bi day wax pourtant mi ngi def li mu a def de ngi def li mu war a def mais est-ce que dara kii na ko maanaam mi ngi def li mu war a def mais boo seetee day wax rek maanaam day soofantal sax ay waxam quoi te loolu jaaduwut conseil constitutionnel bu waxee nit ñi dañu war a xam ni ah lii nag mooy daj jëpp gi jeex na wax na lii conseil bi wax na hmm. waxaat na ñu naan mais day bëgg sax dañuy soofal naan conseil bii ni conseil bi tuuma gi ñu leen tu maanaam ñàkkal ko maanaam da mel dañ ko ñàkkal fayda te loolu ñun suñu bopp la ñuy ñàkkal fayda waaw parce que mooy li nga xamante ni bii tey moom la ñu bokk ñun ñëpp ñu tënku ñu war cee tënku mhm. waaw mais bu fekkente ni bi arrangé na la lim li wax amul problème mais bu la arrangé wut nga jéem a wut yeneen pexe ngir lijjanti ko wër ndomba loolu mhm. vraiment loolu taxul ñuy wax nag quand te ci loolu lañ nekk ci jamono jëñ toll nii